daal di gis gars yi di di waxtaan ak ñoom Copé maa ngi lay ziar. la yaa ngi am mais gars sa réer nee na ma de yaatal. waaw ah, réer waay man yàlla bi a ah, jëm xamal la laa bëgg ah. Wally Seck dafa am ñoo xamante ne dañoo war a yóbbu ñu tukki léegi yow da ngaa war a wane sa bopp ci race gis gi parce que sélection race gis lañ nekk damaa bëgg nga mosal ñu race gis gi ndax race gis gi mën nga mën nga see mosal. waaw. acca kon na neex race gis. Wally bégal leen. ci raas gis dawal ak moom caw caw caw raaj raas gis ah caw raaj caw raas gis. caw caw caw raaj raas gis. caw raaj caw caw raas gis. caw raaj caw caw raas gis. ah raaj caw gi gi caw caw caw gin gin caw gin caw caw caw gin caw caw caw gin caw gin jël gi jël raaj gi jël ah.